Sénégal daanaka ñoo xëy yeewoondook ak bile xibaar bu tiis gannaaw nag savirement bi nga xam ne nag am na ci île des Madeleine jabat boobee nag defoon nag lu toll ci ñeent fukki nit mbir yi nag mi ngi xew démb ci guddi fi nga xam ne nag moo di ci corniche ouest ci Dakar bu ñu sukkandikoo nak ci xibaar yi nga xam ne nag jot nañu ko jot ñi xam ne nag léegi nag bilan ba nag gën naa yokk ndax gannaaw ñeenti nit ñi nga xam ne rek jotoon nañoo ñàkk seen bakkan jamono ji am na ñeneen ñoo xam ne itam jot ñoo ñàkk seen bakkan démb ci guddi nag amoon na lu toll fanweeri nit yoo xam ne nag jot leen a wàllu te ñooñee nag na ci ne nag réewum France fa la ñu fekk baax waaye tamit bu ñu sukkandikoo ci ay kàddu nee ñu xam ne Guinée Bissau itam am na sapeur pompier yi nga xam ne nag ñoo nekkee foofee jotoon nañoo dem ci ndimbalul tamit marine ngir daal di wàllu nga xam ne nag ñoo nekkee foofee ba léegi nag jële jee sabab bi dëgg des naa leer waaye nag les ci mën a jàpp moo di ay jafe-jafe yu nga xam ne nag amoon na ci wàllu géej gi bokk na ci li nga xam ne moo jur musiba ma ba kumba jile